dañ ci ànd ak El Hadji Ahmed Aïdara cay suñu wàllu opposition bi yaay may ma ñeex Mamadou Lamine Diallo day ci tribune yéene kaay waaw nee na Macky Sall daal xam naa yéeneem daal na bu ko dee déedéet maanaam na jàpp opposition bi kon daal di koy nal ba moom moo ko rumbux laa lay wax ni la daal di koy gaañee réduire l'opposition a sa plus simple expression waaw ma ne la Macky Sall na bu ko dee déedéet Macky di ndaanaan du moroomu opposition bi de ah. opposé wu waaye yéen da ngeen a yënguwul ñii da lekk ca boppam yemu ca ndaxte nee na gis nga Macky Sall day waaw dama ne la ma fee woote dialogue la wax tax muy woote dialogue dara lu dul féewale opposition bi kese kese ba mu fi njëkkee woote na kon maanaam dialogue am googee waaw waaye buntu bu mu woote waat nag maanaam beneen day a ak élection mairie yi te tubaab nag nee na y a jamais de sang trois tey ba ca présidentielle boobee parrainage bi ci élection locale yi di ñëw day mënul ne impossible aa ah, ah, waaw waaw organisation élection locale yi laa wax te gis nga élection présidentielle yi day waaw conseil constitutionnel ci boppam kon moo doon jot nag ak a jël wàllum signature yi waaw waaye élection locale yi di ñëw day commission de réception bu candidat yi ci boppam kon moom mooy jot signature yi day sénat bee koy supervisé waaw ci teewaayu mandataire liste ya waaye nag gis nga o a ñaar fukk ak juróom ñaar ci ay candidat waaw ñoo déposé woon waaye gis nga élection locale yi gën a bëri fuuf ñoo leen la wax jëlal ma exemple 2014 rek élection locale ya daanaka ñaari junni ak juróom ñaari téeméer 2700 liste la ilaha illallah la ilaha illallah te gis nga 2019 bi ah njortees nañ ne mooy gën a bëri laa la wax maar day taali maar day taali te bu ñu sukkandikoo na ci loi di ko bi waaw ci a war nga faa am 1 pour cent gën a bëri day 1 virgule 5 pour cent te loolee it mooy amaa a commune yi de 1 pour cent gën a néew gën a bëri maximum 1 virgule 5 pour cent yéeni kaay ma jama jaa ngi ne loolu kay mooy mandargaal ne dama ne ngir élection locale yi rek waaw daal di càmbar nag xool wàllum signature yooyee dana mit waaye yow nga bëgg caa toftal nag wàllum élection député naan da ngay couplé loolee mënul ne xanaa xanaa ñu indi nag ay jofti kon a nelawal le quotidien yéene kay ne ay waay kàddu démb ba kàddu tey yilee Madior Fall ministre waaw moo doon xam le ne constitution bi la daa leer nañ ba mel ni midi ay nekk fii wax fii ak araba jal ñang ñang patiti patata loolee amul deux mandats point ndayu mbi li ci boppam Wow, day waaw nee na woon mandat mënatul weesu ñaar ci mim réew loolee lijjanti nañ ko bu yàgg la la wax te man ci loolee laa ne man Macky Sall kenn mënu fee weesu ñaari mandat man day bis bu yàlla dogalee sénégalais yi daal di may sama juróom-ñaari at yu ma génn ak juróomi dugg pare daal di dem Seydou Gueye porte-parole gouvernement bi day ci la Soleil kay mu mujj la wax na nañ ci constitution bi kay bokk day bu nit la waaw nee ñu ñu koy waaje jébal boroomam ay fan ñu ko déggee bu dee nag am na ñenn ñoo xam ni kon perte nañu PS la AFP de demal leen seen bopp ngeen bañ di la rek Moustapha Niass ak laa ne ñooy perdant yi waa AFP day waaw teel na yoo yëglu xam le nañ ne 2024 dañuy am candidat sa jamono jooje Macky Sall ci boppam waaw yéeneem daal mooy delluwaat seen kër dajewaat ak nag ay frères libéraux kon nag mel ni moom Macky Sall mi ne soxlaatul gaañ lu bari de PS ak AFP soxlaatul waaw lan la nañ leen ci kaso bi waaw yow PDS yi xam le ne danañu dugg nag maanaam kon ci gouvernement bii di dikk ñamewuñ ko maa la ko wax ma ne la ëpp na weer ay karimis yoo xam ne kon nañ leen a tegoon loxo ci diwaanu géej waay Babacar Askan waaw Salib Fall ak Naar Fall ah. Ah. te ba léegi ni la kenn xamul lan lay def ba ñu teg leen loxo dugal leen ci kaso en tout cas daal ba ñuy ubbi jumaa ju mag ca géej waay googu Macky Sall doon fa ñëw ca lañ leen jàpp baara dolli Mbacké day waaw la muy sàkku nag mooy maître ma dikka ñaa ne PDS kon poste député ba comme que bàyyi na Quotidien ne kay fi mu nekk nii nag ñoom ñooy wut yoon wuñ jaar Cheikh Abdou dolli Mbàkke ci Vox Populi waaw nee na gis nga luwaaw amnistie ngir jéggal Karim Wade mi la Khalifa Sall day buñ ko ci assemblée nationale voté jum wala jum mi ne critique na la wàllum jéggale politique di amnistie politique ay waaw Karim Wade Khalifa Sall day danañu moom seen bopp ci 4 avril bi leen enquête ne dafa am ay pungal yoo xam ko dañoo nekk Macky Sall day dañ doon financer ay candidat yu ci opposition bi lé ci élection présidentielle ya laa ilaaha illallaah La ilaaha illallaah waaye Macky Sall day dégg na leen ba wala dana seen waaw waaw directeur ba ne coowal docteur Ndeye Khady Fall ak di bàyyi waaw ma ne ba day douane baa ca teg concom de douane baa ca teg loxo te ñaari dossier la laa la wax benn bi day ay trafic faux médicament la ay garab yu baaxul la ilaha illallah beneen bi nag wàllum la njuuj njaaj ci suukar si la mu yow nee nañ douane ci teg loxo le évidence teene kaay ne ceeb doy bi day 2018 ci réew mi autosuffisance en riz waaw nee nañ bilan ba day 100 pour cent te li ko waral day mooy compétence xarañtaw ministre agriculture wax sur sa année million daanaka a gen wala day lañ jël ca coffre fort ba ay samba surabaali yoo xam ne ne dañoo song kon station sel ba ca jaxaay yore ay oto yore ay ngànnaay door ca kaw takk gardien ya doy na waar du doy waar a doy waar la xew ca Angleterre te doomu Sénégal lan la kamara mi nga xam ne kon nañu ko rey inna lillahi wa inna ilayhi rajiun boog sobi li ne moo tax yaayam wax ne de lu doy waar alaaji ñun dee lii lépp xamuñu ko woon ci réew kër nag lu fa dul woon am ba commencé di fa am xoolal gan nga wala gan ya boo paree ma ne la alaaji tëjal Ce programme vous a été proposé par Emirates.